baaboog ñi dawal moto cag-cag yi gis nañu ne ñu bari ci ndawi réew mi léegi ku ci amu moto rek euh, dugg ci wàllum livraison la ko jur nag ñàkk xëy doo gis loo jàpp ca la bokk nee nañu ak lu mën di mel lu barab lu xe lu xe léeg-léeg dañu fay dem ngir di yóbbu ay colis ngir mën a am ci lu ñu jàpp Mouhamed Ali Mouba daje ak benn livreur boo xam ne ndaw la toll ci ñaar fukkeet ak juróom-ñaar la ko ci dugal ak lam ciy dund Mouhamed Ali Mouba moom mi ngi tudd. Euh, maa ngi tudd Khalifa Ababacar Gaye maa ngi dëkk Castor village Sam Sey. livreur la. Euh, càq la rek. Khalifa Gaye am ñaari fukki at ak juróom-ñaar mu juddoo Dakar jàng ba classe première lycée mu baax. defoon formation ba pare am sama diplôme def ay stage électrotechnique laa def. maanaam électricité bâtiment ak industriel. mais après pour ma am embauche euh, emploi moo newoon problème. moo tax mu créé business boppam dugg ci càq kenn ci clientam. jàppale ko. waaw en fait yàgg naa toog di ko xalaat nag dama yàggoon toog di ko xalaat di ko xalaat. ngay wax sama yaay mais moom gisu ci woon boppam parce que danaan nit mun na la jox loo xam ne doo xam li ci nekk. ma ne ko man daal balaa nit daal dina di ma jox benn affaire ma siy dugg dinaa vérifier la nag man la ma jox soit dinaa bind même nit su ma joxee xaalis sax ne ma yóbbu dinaa ko defal décharge moom tamit même chose. waaw moto bi sama benn xarit nag moom ay kilim atmosphère am après ba ñu toogee waxtaan si tamit ma ne ko lii nii benn business la daal bi nga si gagné man tamit dinaa si gagné si lañ commencé moom chaque nag day fay trois mille cinq cent francs ko bés bu ne day versé trois mille cinq cent loolu ci diiru at balaa muy moom moto bi métier livreur nag dafa laaj yenn man-man yi sept man day fekk ma yeewu sept balaa maa génn suñu kër huit heures waaw toog xaar nag fekkee am naa baax na su amul nag ma jéem a xool na laay liggéey si terrain bi maanaam ci chantier bi quoi waaw non ñaari liggéey maanaam formation bi ma la wax ak kàcca bi mooy ñaari góor moom warul ñàkk bañ a ne lii mënu ma ko quoi. bés bu nekk nag ci mbedu Dakar yi yi fi yombul. waaw sonal nañu torop ñoom ñoom ñu baal dara. xanaa léegi ñoom nañ taxi ak car rapide léegi ñoom ci taxi yi lañ tuddee quoi. par jour loolu nag. <laughs> balaa muy am leneen Khalifa Gaye ñaan yàlla may ko kattan bës bu ne ngir mu mën a def liggéey